lii képp la ab sëriñ mënalub taalibeem mu woote ab bis nga bàyyi sa yitte yëpp ku ne xam jamono ji ne mu xate ak yéen ni nga xam ne ni ngeen baree ay service ak yooyu mooy yooyu yëpp ngeen bàyyi ko ñëw ci bis bi daanaka loolu dafa kawe loolu si noonu ba tax na ñu ngi ñaan suñu borom guddal seenu fan te wéral leen ba ni ngeen yéenee liggéey seen Tuubaa lépp ngeen defe ko nam leen soobee te ngeen ànd ko taalibe yëpp mu mel ni sant nañ bu baax cant goo xam ne cantu biir la ak bu biti yi sama kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci bërëb bi ñoo ko waroon a jotal daa topp ñu jàng ba daa fekk ñu jàng ba noppi rek ñu di ko yëkkati waaye eh, béréb bi ngeen wàcc fii ñun ñoo fi gën a euh, suufe ay fan sunu kilifa yaa ngi fii ci béréb bi ñoo waroon a jotal kàddu yi ñàkkut ni ñoom mm, dana am kenn koo xam ne dana jotal kàddu yu ngërëm jëme ko ci mbooloo mi kàddu yi may wax dama koy jëmale rek ci sëriñ bi ndax euh, bisub démb bi gis ngeen ni mu xate xat na lool waaye ñoom ñëpp kenn ku ci ne def na pas-pas ba yegg si fii loolu nag dañ koy sante sëriñ bi di ñaan ngeen yàgg loolu te wér eh, ba ngeen gën ko mën a taxawe ndax bëgg nañ at mu nekk nii nu ko ànde nu ànde ko yéen nii bu defee ñu ngi sant mbokk yi teew yëpp bàyyi wunu kenn muy góor ak jigéen mag ak ndaw di saar mbokki jànkatu xasaay yi nga xam ne itam ñoo fi teew ndax bis bi bu taaroo ba mel melokaan wi joué nañ ci rôle bu rëy rëy ju mel ni ñi fi jot a jaar ba ci sëñ xaadim géey mi toog si naawmar waaye mbokk yi fi jaar yépp rek te yëkkati fi micro wala ñu toogoon doon kuréel ñoom ñoo def bis bi nii sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen yàlla na seen taxawaay yàgg suñu kilifa yi toog nag muy Baye Mbaye suñu Baye Alioumi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa fii ci bërëb bi xëy na ñoom ñoo fi teewaaleel yeneen mag ñi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ñu ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom guddal seen fan bu baax te wéral leen ngeen yàgg ci kanamu njaboot gi lool ndax seen taxawaay rafet na yéen moom retraité wu leen ci sëriñ bi ndax am murit du retraité loolu mooy waral ngay dégg ne di wàcc na waaw moom bu wujjee boromam ñu ne wàcc na keroog lay doog wàcc am murit moom boo xasee takk la gi rek wàcc amut yéen moom wàccu leen. te yàlla na yàgg nii nu ko àndee nu yàgg ko àndee nii barki xasaayit sëñ Tubaay ñu ngi sant bu baax mbokki dëkk bi yëpp wax dëgg yàlla depuis barki démb ba léegi ñu ngi fii nekk ci wàññi dem ak ñëw ku ne xam na eh, jamono ji fi mu toll yitte waaye kenn ku ci daa bàyyi këram ñëw toog fii li nga xam ne moom la war a def lépp def na ko ba def lu foo ko suñu njort ñun kon mbokki dëkk bi bàyyiwuñu kenn di tàmbalee ci ki ci gën a mag ba ci ki ci gën a ndaw moo xam nga doonu góor wala jigéen ni ngi lay sant sant ko am ne suñu xol lañ ko tibbee ndax ñun mënu dara amunu xëy na mbooloo mi ñëw na rek di nu jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey sëriñ bi waaye ñun ban nañ caa bañ a doon dara waaye lépp yéen ñu ngi leen di ñaanal bu baax borom bi guddal seen fan te wéral leen bu baax barki Seexul Xaddim ndax seen taxawaay rafet na li ngeen war def lépp def ngeen ko bu amee ak moom si nun ñi rek lay doon